asalaamualeykum su ngeen ma ko mayee ma tàmbalee sama kàddu ci njaalee waa senegaal yépp Serigne Abdou Aziz ci Al Amin sunu kilifa la woon sunu wóllëre la woon ah suñu ñaanit mi ngi jëm ci Bouba Diakhao mi nga xam ne muy football muy sport de manière général muy Thiès di Sénégal ah am na lu mu fi doonoon di leen jaale aussi Djibo Leyti Ka ndax keroog bi ñuy présenter plan de développement de la ville ah ñëw na teewe ko te def naa ne bokk na ci jataay yi mu mujj bokk mu doon jataay yu fés di bàyyi xel aussi ak ah, kii ñu lay xam ne moom lañ doon woowee Aliou Sow te mu doonoon ku doon yënguti ci koom-koom bu baax ba ñëpp xam ko di ñaanal nag koo xam ne ci ñun la bokkoon te jóge fi yàggul muy ay Rasul Wan doon liggéey ci projet restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès waaye it di jaane képp koo xam ne ci diggante bi jóge nga fi moo xam nu yëg ko moo xam nu bañ koo yëg ka lay ñaanal nag monsieur le représentant du préfet du département de Thiès mesdames messieurs les conseillers de la ville de Thiès madame la modératrice monsieur le modérateur honorable guide religieux messieurs les délégués de quartier, madame la secrétaire générale, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, très chers concitoyens. Je me réjouis de recevoir les Thiessois ici dans l'enceinte de l'hôtel de ville pour cette septième édition de l'audience publique du maire de la ville de Thiès. Par la grâce de Dieu, nous avons pu honorer l'organisation de ce rendez-vous citoyen définitivement stabilisé tous les 30 avril et octobre dans l'agenda institutionnel de la ville de Thiès. Dans cet élan, Permettez-moi de remercier les modérateurs, en l'occurrence Mohamedou Moustapha Aydara, membre de la société civile, et Madame Dayna Bey, chargée du partenariat, de la communication et du genre à l'inspection d'académie, par ailleurs secrétaire générale de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, UDEN Thiès, et présidente de la plateforme des acteurs non étatiques de Thiès. Ces personnalités ont bien voulu accepter notre sollicitation pour animer cette séance. Ce tandem de militants chevronnés de la société civile symbolise la collaboration franche de toutes les catégories socio-professionnelles qui doivent s'atteler à la bonne marche de nos institutions. Ce lundi qui marque l'organisation de la septième édition de l'audience publique est sans conteste une date exceptionnelle et à plusieurs titres. Pour cause, lundi est le jour de la semaine dédiée au rituel civique de la levée des couleurs. Une cérémonie hebdomadaire qui se tient ici à la mairie de Thiès, elle est devenue une pratique bien ancrée dans la conscience collective des Thiessois. Dans le cadre du concept Thiès ville propre, nous avons initié Altine Thiès, les lundis de Thiès consacrés au nettoyage de la ville à partir de huit heures. Les lundis de Thiès, Altine Thiès déploie un investissement humain qui permet à nos services, en étroite collaboration avec les populations, de lutter contre les l'insalubrité qui n'a pas sa place dans notre cadre de vie. Nous nous attelons à renforcer ces dispositifs avec l'acquisition d'engins de nettoiement par le biais de la coopération décentralisée avec nos villes partenaires. D'ores et déjà, dans ce registre, je vous informe que les tracteurs offerts sous forme de dons par la ville de Montréal de Thiès sont déjà arrivés au port de Ils seront bientôt acheminés à Thiès pour venir en appui au matériel déployé pour le ramassage des ordures. À cette occasion, j'invite la population thiessoise à participer à l'initiative Altine Thiès que nous devons pérenniser. Je l'invite également à s'investir encore et plus à faire preuve de civisme fiscal pour nous permettre d'assurer d'une part les investissements envisagés dans notre cité et d'atteindre d'autre part les objectifs de qualité de vie que nous avons fixés. Ces actes posés de bonnes pratiques que nous souhaitons instaurer et ériger en tradition républicaine dans notre cité de Thiès. Sous et dans le même sillage, un conseil consultatif de 80 membres sera en place toujours dans le souci de mieux impliquer les populations dans la gestion de la cité. Nous sommes persuadés que la citoyenneté est le levier le plus puissant pour faciliter ou accélérer la synergie tiessoise qui doit prendre en compte les préoccupations que nous avons en commun. Nous ne ménagerons aucun effort pour multiplier les cadres devant permettre aux citoyens de conquérir des espaces d'expression et d'action. Tout ceci augure d'un avenir radieux pour la mutualisation et l'intercommunalité. En effet, l'institution de la ville est le cadre par excellence de la mutualisation des compétences pour fédérer les actions et les services. Il s'agit de mettre en place des mécanismes devant formaliser une solidarité agissante au profit exclusif de la collectivité. La ville de Thiès, constituée par les communes de Thiès-Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest, est un espace géographique sans discontinuité. Le conseil de ville, émanation des conseils de commune est l'instance qui, de fait, symbolise la mutualisation. Il est ainsi tout bénéfique pour les communes d'identifier les secteurs et services à mutualiser en priorité, de mettre en place les mécanismes et les cadres de gestion de cette mutualisation, mais également capitaliser les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs. Par conséquent, la gestion du foncier, le système de traitement des déchets, l'éclairage public, le recensement et le recouvrement des recettes, voire une harmonisation budgétaire, sont des pistes à explorer pour la mutualisation. Tant il paraît évident que la mise en œuvre du plan de développement de Thiès et la réalisation des projets majeurs dans la ville passent nécessairement par une étroite collaboration de nos institutions. Je prends comme exemple l'ambitieux projet de restauration et de réhabilitation des écosystèmes piloté par le colonel samora qui nous en dira plus sur ses impacts dans notre environnement. Nous n'oublions pas les volets relatifs à la dénomination des artères, à l'adressage, à la sécurité. Il est également impératif d'établir des plages de concertation et d'action entre nos services techniques pour que les populations ressentent qu'au-delà de la gestion de proximité qui incombe respectivement aux communes, les Thiessois sont tous citoyens d'une même ville. S'il est vrai que le calendrier politique nous appelle régulièrement à endosser en toute légitimité nos couleurs et nos discours partisans, il est impératif que lorsque celui-ci nous en donne le répit, nous sachions trouver un cadre de concorde qui permette d'œuvrer dans le développement harmonieux de notre cité. La concertation avec les maires des communes de Thiès-Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest est une formule pour trouver des solutions durables aux problèmes qui se posent à Thiès et envisager de façon cohérente les perspectives de développement. Je suis persuadé que main dans la main, nous serons plus efficaces dans nos actions quotidiennes de gestion des affaires de la cité. Ensemble, enfin, mutualisons nos moyens pour donner de l'envergure à notre programme CAITES. CAITES est le concept qui vise à renforcer un programme économique et culturel, l'attractivité de notre cité Les mois à venir verront l'organisation de grands événements. Le festival Kaï-Thiès en fin d'année, la foire internationale de Thiès et le forum des partenaires qui doit accompagner le plan de développement de la ville. Ces événements permettront assurément aux acteurs culturels et économiques de révéler leurs capacité et de rivaliser en créativité. Ils sont des leviers qui vont également impulser une dynamique économique à la hauteur des opportunités qui se présentent et des ambitions que nous avons déclinées pour notre cité mbokk yi su maire yi wut na ay chaise yi boppam defe naan tey ci ngeen toog moo xam ay chaise bi moo xam ay chaise ordinaire ndax dëkk bi dafay bëri ay événement yuy xew nit ñi di demander ndimbal ci wàllu woowu te en général procédure yi dafa jafe mais comme ñu bëri dañuy sàkku pour lu ñu mën a louer ay chaise ak yu ni mel wut nañ daal chaise yu takku yoo xam ne ah fu farata taxawee rek daañ ci mën a jàpp bu soobee yàlla euh, ci wàllu surveillance ak citoyenneté jël nañu ay dispositions di surveiller les institutions municipales promenade des Thiessois place de France di sécuriser aussi des cérémonies organisées par la mairie ah di leen wax ne am na waxtaan bu ñu def ak direction générale ASP yi mu war a am nag ay ASP yu takku yu war a ñëw ci dëkk bi ngir man ñoo jàppale ci liggéeyu surveillance urbaine bi euh, ñuy def campagne d'orientation et de sensibilisation defoon nañ ko pour le retrait des cartes d'identité nationale amoon nañu ñuñ fa teewaloon en tant que maire yi ensuite programme un une école am na ci dix école action sociale nañ naan defee journée médical ren ji tamit def nañ ko ah mu mel ne deux mille deux cent soixante douze personnes consulté nañ leen muy ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne seet nañ leen ci lu ñu génnewul koppar jël nañu en charge vingt cas appuyé nañu journée de consultation gratuite bu association des étudiants thiessois en médecine appuyé nañu en médicaments les journées de consultation gratuite de l'association Renaissance de Diamaguène am na benn don d'un lot mat de matériel médical d'une valeur de 45 millions boo xam ne hôpital euh, El Hadji Ahmad Sakhir Ndiéguène lañ ko jox suñu partenaire bi ñuy wax Yati Braise moo jàppale ci loolu Euh, am na ay famille yoo xam ne suñu benn partenaire bu ñu wax forum islamique lu toll ci cinquante famille ñoom jàppale nañ leen ci wàllu ndawal ci tabaski bi ci sport lancé nañu programme sport pour tous di ko defee fii muy personnel bi ak ku bëgg ah ñu lancé woon ko façon yéene di ko def altine ci ngoon ak alxames ci ngoon pour ñi bëgg ginnaaw di heures ASC yi nga xam ne ñoo teewaloon Thiès ci phase nationale nawetaan yi appuyé nañ leen globalement pour un montant bu yegg ci 4 millions alors def nañu organisation finale bu coupe du maire bi nga xam ne ah suñu jur woowu di Bouba Jaxaaw moom lañ ko tuddee woon alors participer nañu ci organisation wu finale masculine ak féminine bu championnat national de basket alors ci culture événement ak cérémonie def nañu appuyer appui ci candidat wu Thiès yi doon dem seen petit def appui ci cérémonie sargal waa Thiès appui sargal Bouba Diaxaw organisation journée africaine de la décentralisation et du développement local journée de sensibilisation sur la protection des données personnelles organisation d'une manifestation de sensibilisation sur les risque du rail ñu def ko ak waa GCO alors def nañu lancement 4G ak waa Sonatel ñu profitoo ci ñoom am ndimbal yu ñu indi ci dëkk bi ci cadre urbain donc Altine Thiès dañ ko tàmbali boobaak léegi bañ ko tàmbalee ba léegi mu ngi am léeg-léeg nga gis sax léeg-léeg nga gis sax ku ne altine bisu liggéey la wala tey ngeen jël budget dëkk bi ngeen setal ci dëkk bi euh, xam nga ñu bëri dañuy wax budget xamuñu luy budget ndax ce n'est pas que daje nañu ñun ñëpp def débat sur les orientations budgétaires ne ren bëgg nañ fi def nangam. ñu tënk budget bi ne dépense yi ñu war a def ci nii la toll waaye dañuy wax ne xaalis boobu fii ak fii lañ ko war a jëlee mu am lu état bi di joxe am loo xam ne parfois dañ koy jëlee ci ay partenaires am loo xam ne dañ koy yaakaare ci ay impôts et mais ñaata nit ñooy fay foncier bâti ñaata nit a koy fay. benn marché ville yoratu ko benn marché yorewuñu gaaru routière fan la ñuy xaalis kon lu ci bëri ñun ñooy wut ay partenaire kii jàppaleñ ci lii kee jàppaleñ ci lee ci leneen yéen ñëpp xam ngeen ni programme national de gestion des déchets bi ñuy fal fi lañ ko fekk muy doog a tàmbali programme boobu tànnoon benn kuréel bu ñuy wax UDE ñoo ñu am seen propre personnel di liggéey ak ñun pour set setal dëkk bi mais depuis daaw arrêté na ñun bu ma amoon bu ma ko mënoon damay recruter ay nit ñu continuer di def li ñu doon def mais xanaa boo leen jëlee di nga leen fay la leen di fay foo koy jëlee kon soo ko defee benn weer ñaari weer fayoo leen dootuñu ñëw looloo waral ñu doon topp état bi pour ñaari yëf mën a soit xaalis ñu def liggéey bi wala ñu indiwaat programme bi jël nañu décision ne programme bi bu ci yàlla àndee ci novembre bi day tàmbaliwaat mais comme tàmbaleegul ci diggante bi ma négocié woon ak mbokk mi di Diop si honorable député Diop si tey yore loolu UDE ci kanamu a ah, sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin mu nanguloon nu ko ba li fi bàyyee li ci matériel bu ñuy jàppale looloo ko waral. sunu camion yi yenn saa yi benn panne keroog benn bi dafa am incendie mu lakk lu ci waay man léegi nag ci diggante boobu en attendant solution di am xam nga li am mooy lan mooy koo xam da ngay liggéey ñun waxuñu la kaay bale waa mairie bi ñi fiy toppatoo état civil ak leneen kenn balaloowu leen xam nga dafa am ki am jotu bale am kàttanu bale te bëgg a bale kooku lañu woo ki nga xam ne am na jotu bale am kàttanu bale te bëggul bale na dem wowuñu ko voilà mais nañu bàyyi ñu bale nit ki boo ci jàppul boo ci jàppul da nga ciy noppi parce que nit ki nga xam ne moo am jafe-jafe ki nga xam ne moo feebar booru këram am ay jafe-jafe c'est-à-dire que suñ ko mënee jàppale en attendant moyen di am dañ koy def te duñ ci boole ay wax gënumaa wér kenn ëpp ma kenn kàttanu bale mais man bu ma bëggee bale damay bale parce que c'est ma conception des choses parce que loolu aussi il faut que ça soit très clair parce que ñun c'est vrai population ñoo ñu dénk mais dafa am aussi wax naa leen ko fii dafa am lu leen war mooy soo bëggee yow li nga li nga li nga moom ñu la ko jox li la war da nga koy def waaw parce que bu xaalis amul bu xaalis amul mais naka lañ koy defee nu dañuy jaar jël suñu temps di lekk di lijjanti di toppatoo bu dara ne këtt ne jonn léwunu kay ban am de soo gisee bunt boo xam bu ñu fa jaaree ñu am nga wax nu ko ñu dem fa en attendant ñu ngi def tout pour sensibiliser population yi sensibilise citoyen yi wax leen ni mais foofu si bàtt soo waree fay leneen nga fay c'est vrai ay commerçant ñi ngi fay ci marché mais ñun yoruñu lool loolu ñëwul ci ñun ñoo ko waroon yore mais ñëwul ci ñun kon li ñuy defee defeere dëkk bi fu muy jógee kon foog ñuy jël suñu personne di ko ci def pour mu dox voilà ah. hmm. waxoon nañ leen fii ne leen programme de modernisation des villes di Promoville nga xam ne programme la boo xam ne état bi moo ko initié wax ñu liñ ñu bëgg a defal ñu laaj ñu nuñ ko bëggee ñun ñoo toog wax ne nañu defar mbedd mi ak mbedd mi ak mbedd mi ak mbedd mi nee na bu ñu sañoon mu ëpp loolu waaye comme yii lañu amandi mooy nañ leen defar ci lu mu gën a gaaw mu gën a baax mais source financement bi dafa am ñaar lenn li état bi moo koy financé lenn li banque africaine de développement li état bi di financé moo tàmbali diggante R100 grand standing euh, euh, euh, Mbour mais li ci des ñoom yabal nañ fi mission ci semaine bii ñu génn am naa yaakaar ni balaa yàgg yeneen yi tàmbali euh, bu soobee yàlla yàlla na ko suñu borom àggaleeg jàmm euh, mbir mi nag du defar tali kese ndax ginnaaw tali yi école ya fa nekk wala poste de santé ya nekk ca yoon yooya wala yeneen infrastructure yu fa nekk dañ cay jàpp euh, bu ñu jógee ci loolu. am na benn comité de suivi bu ñu taxawal ak waa GCO am naa yaakaar ni ci wàllu sécurité lu jëm ci raay bi ak yeneen nu jàppale ci lu bëree bëri incha allah Sonatel ñëw nañ fii alxames bii rek indil ñu ay casque indil ñu ay gilet pour ñuy dawal Jakarta fekkoon na waa jaara SARL bu Amadou Clédor Fall Fall jiitu woon ci doon ci def ñoom itam ñu bëgg gilet yi ak kaski yi ñuy dawal Dakata di leen sol ci wàllu coopération décentralisée coopération boo xam ne Senghor a ko ubbi woon ak dëkk bi ñuy wax Cayenne tàmbaliwaat nañ ko dëkk bu ñuy wax Santa Cruz ci Cap-Vert am nañu euh, relation léegi ak ñoom ba def benn convention de partenariat ci wàllu culture éducation infrastructure am na yeneen diplomate yu ñu fi recevoir ci jamono yi def nañ fi mission camp Cergy Montréal Santa Cruz ak IMF ay médecins tchèques ñëw nañ fi ñaari yoon ñett sax ndax benn bi mars la woon pour préparer mission yi benn bi juin benn bi octobre bi pour opérer ay nit fii ci hôpital régional ci ñu dul fay te def nañ ko mission baa ngi doon doog a jeex euh, wax naa ci bi may ubbi ci français wax ne ñaari tracteur yi ñu yi ñu Montréal diggoon te may nu ko ñi ngi woon ci bato agsi nañ ñi ngi pooru Dakar mu agsi Cees a ci des alors li jëm ci projet restauration et réhabilitation des écosystèmes je pense que colonel samura dina ci ñëw plan de développement de la ville jot nañ ko fi présenté fa mu tolloon pour am retour population yi retour yooyu intégré nañ leen ba équipe bi ci doon liggéey am na léegi benn mouture finale boo xam nañ ko mën a présenter le conseil de ville nous avons aussi finaliser un plan stratégique alors am na benn projet buñu def aussi santé de la reproduction et santé de l'enfant fas nañu yéene ci nu mu gën a gaawee mettre en place benn conseil consultatif de la ville ndax loolu code bi moo ko santaane boo xam ne 80 membres ci nekk mu tolloo ak nombre de de ville alors lépp loo xamante ne jëm na ci école yi am na ci fukk yoo école yoo xamante ne am na ñu ñu fay yabal bis bu ne ngir ñuy dimbale élèves yi ñuy traversé ci lu ñu dëgmal ni festival Kaay Thiès bu ci yàlla àndee 29 30 ak 31 décembre war na am ci wàllu aar ak culture déwén bu ci yàlla àndee en rapport avec ñi yëngatu ci commerce ak ci économie danañu def première édition foire internationale Kaay Thiès comme dañu def plan de développement de la ville benn bu ci nekk projet bu ci nekk soixante-quinze projet yi ñu tuddoon benn bu ci nekk ñu war a wut partenaire moo xam ci état bi la moo xam ci privé bi la moo xam ci suñu partenaires yi ñu amoon la avant moo xam dans le cadre du du partenariat public privé dañu bëgg a organiser benn forum des partenaires aussi déwén. s'il plaît à Dieu alors ci travaux et réhabilitation installation de mobilier urbain sur l'avenue Caen banc corset plantation de caïcédra ñu def ko en rapport avec la ville de Caen ñi ngi war a jëm en rapport avec l'AGETIP ci réhabilitation de l'hôtel de ville complexe Léopold Sédar Senghor ak voirie am na projet bu ñu war a réaliser ak waa Pakasène waa ANER waa ANER waxtaan nañu ñoom ba ñoom ñu war ñoo jàppale ci jàkka yi jumaa yi église yi pour seen éclairage ñu def ko ci solaire ba nga xamante ne du facture la ñuy wéeruti alors war nañu ci wàllu électricité def benn ligne bu bees bu 250 buy relier Diass Thiès Tivaouane en rapport avec la Sénélec dans densifier aussi ligne 90 bi bi desservir grand standing R100 Darou Salam maintenant ñi ngi ak ONAS pour di def implantation wu benn station de bout de vidange alors yii mooy yi nga xam ne ci juróom benn weer yi ñu génn mooy li fi jot am am na yenn yoo xam ne ci ñu dëgmal ci juróom benn weer yi di ñëw la ñuy ñaan suñu borom. àggale ko ak jàmm lu ngeen ci dégg nag ci yi yiñ fi wax te ngeen ne war nañ koo ba ngeen wax nu ko lu ngeen gis ne war nañ koo jubbanti ci niñ koy defee ngeen wax nu ko beneen xalaat bu ñu am bu ngeen am te amuñu ko woon ngeen wax ñu ko bu soobee yàlla